alors on va commencer par euh, jiye ji nga xamante ne moo amoon Pikine euh, ci technopole euh, ñeel l'affaire Abdoul Aziz Ba ñu gën koo xam ci Abdoul Aziz Dabala ak Boubacar Gano ñu gën ko ci Wali alors comme ni ngeen ko xamee nekk na mbir boo xamante ni daanaka dafa jural traumatisme ah askanu Sénégal parce que depuis lors tout le monde se pose des questions à savoir ana lan moo waral lu ni mel jëf ju ñaaw ju ni lan moo war a mën a tax rek ay nit def ko surtout tey enquête bi ñu leen di fàttali que depuis lors DKR 221 mi ngi ci amal liggéey bu am solo gis nañ ni que division des investigations criminelles moo yoroon dossier bi donc ni ki bi def nañ face au procureur bu tribunal grande instance bu pikin par la suite ñu daal di leen nag mettre sous mandat de dépôt donc euh, sept personnes yooyu Nabou Leye daal di ci bokk donc euh, ginnaaw si aussi ñu ñuy xamal ko ubbi nañ ab information judiciaire donc loolu nekk benn traumatisme boo xamante ni daanaka askanu Sénégal am nañ ko parce que nag euh, bu comme ni ma koy waxee rek bu doon ne Abdoul Aziz Ba ñu gën ko xam ci Aziz Dabala dafa génn àdduna ñu naan kan moo wala dafa génn àdduna ñu ne suñu borom yàlla suñu borom moo jël bakkanam rek naturellement daanaka dina métti parce que njabootam dinañ ñàkk famille wam dinañ ñàkk jege ñaaleem dinañ ñàkk askanu Sénégal dinañ ñàkk parce que nekkatu koo xamante ni daanaka duñ koy euh, présenter qui que ce mais bu fekkente ni doomu aadama ni yow moo la fekk ci sa diwaan jël sa bakkan enquête bi di woy askanu Sénégal di gën a sëngeem parce que tur buñ ci tudd rek nopp wala euh, euh, euh, rongoñ daal di dal dënn dafay xaw a jaax dafay xaw a jaaxal ñu ci bëri parce que man mii bokk naa ci ñi nga xamante ne en tout cas dossier bi daanaka mën naa ne traumatisme laa ci jëlee parce que depuis lors bokkoon naa ci ñu doon suivre dossier bi de waaye tout le temps donte enquête bi suy way dama siy dégg turu Naboulaye par exemple Naboulaye nekkoon jigéenu Abdoul Aziz Ba tout le temps su ma déggee information wala ma jot information buy dëggal ni Euh, daanaka ñu ngi ko ciy tudd dama doon wax non peut-être que ça changé changer peut-être que ça va parce que mënuma comprendre ñu egg tey ci société bu ni mel société boo xamante ni doo xam kan nga war a wóolu doo xam kan nga war a jàpp doo war a xam kan mooy sa xarit waaye it doo xam kan ngay moytu parce que finalement on te dit attention mais kan ngay moytu finalement parce que tamit nit mënoo nekk ci àddina di dund ne yow doo jëflante kenn léegi tu te demandes quoi société bi moo feebar ban feebar lañu am loolu yëpp war war a tax ñu def ci taxaw seetlu xëy na xool at éducation de base bi nga xamante ni moom la ñuy jox suñu ay suñu ay njaboot xëy na parce que bu fekkente ni nit moo war a mën a sañ fekk koo xamante ni yow yaag moom da ngeen daan nekk suba ngoon guddeeg bëccëg nga def ko jëf ju ñaaw ju ni mel on doit se poser des question à savoir lan moo xew qu'est-ce qui se passe ci Sénégal gi nga xamante ni dañ doon wax naan réewum teraanga la Sénégal réewum jàmm la Sénégal yenn ñaawteef yi mënu fee am waaye bu ñu demee ba finalement ñu naan la traumatisme la nit ñi amee parce que xamatuñu à qui faire confiance xamatuñu kan nga war a moytu véritablement ça pose problème donc nekk ay question yoo xamante ni ku ci nekk yaa ngi koy posé wu euh, ci sa xel donc on attend de voir tey dossier boobee fu muy mujjee en tout cas ñu ngi ci rafetlu xëy na liggéey bi nga xamante ni élément euh, wu Adrame Sarr yi def nañ ko ci ak moom mi nga xamante ne moo di Adrame Sarr donc police def ci liggéey bu ama am solo parce que tey daanaka ku ci nekk yaa ngi toog toog di xaar tey dossier bi fan lay mujjee ñu doon wax que dina nekk dossier bu compliqué compliqué compliqué parce que nag meurtre la boo xamante ni daanaka boo xoolee éléments yi tu vois nettement dañ ko prémédité donc ils ont fait un excellent boulot donc réew mi moom Sénégal ku def lu baax dinañ ko wax boo defee leneen di tamit ñu wax ko donc euh, élément Adramé Sarr ak moom mi nga xamante ne moo di Adramé Sarr nekkee ca division des investigations criminelles euh, ñu ko ñu leen ci jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne def ngeen ko ñeel euh, dossier Abdoul Aziz bala ak Wali donc on attend de voir tey dossier bi naka lay mujjee li wette woor mooy comme ni ma leen ko waxee léegi rek ñooñu nga xamante ni daal nañ leen ci joxañ baaraamu tuuma ba léegi si tamit ñuy rappeler ay présumé meurtrier lañ parce que jugé guñu leen ba war a mën a wax ni que ñoom ñoo def ay présumé meurtrier lañ parce que daanaka xëy na ay éléments yoo xamante ni gis nañ ko que ça soit ci ay appel téléphonique entre autres ak ay ay téléphones yu ñu borné euh, xool tey fan la ñu nekkoon jamono jooju nga xamante ne ñu ngi euh, faat Abdou Aziz Dabala et autres gis ci ay mbir yu doy yoo xamante ni euh, yu yéeme la mais on attend de voir euh, nu muy mujjee di wette mooy police def ci liggéey bu am solo ñu leen ciy félicité bu baax a baax di jaaree encore une fois famille Abdou Aziz Dabala ak Waly mi nga xamante ni nag wax dëgg yàlla dañuy naan rey ñu Waly rey ñu Aziz Dabala waaye seen famille la ñu parce que on sait que ay Euh, soutien de famille lañu woon nekkoon nit yoo xamante ni ñu seen wayjur gërëmoon lañu Abdoul Aziz Dabala gis nañ tey témoignage yi nga xamante ni wayjuram bu jigéen def na ko euh, sëram bi tam bu mbokkal ndey ak baay def ko donc euh, nekk autant de choses yoo xamante ni mën nañ ci def taxaw seetlu on attend de voir en tout cas dossier bi fi muy mujjee donc ñu daal di dikk ci beneen mbir mi nga xamante ni am na donc on voit que niki bi kilee di commissaire Keita commissaire Keita ñuy fàttali ni que moom mooy président mouvement force euh, daal dinañ koy convoqué ni ki di foofee division des investigations criminelles par les éléments de Adramé Sarr bi nga xamante ni moom laa doon wax léegi euh, di dikk donc ni ki biig biñ koy convoqué amul woon benn information buñ ko joxoon par rapport à sa convocation mu daal di nag dem dem wuyu ji donc sa veut ko que moom mi nga xamante ni moo di euh, commissaire Keita convoqué woon nañ ko niki bi waaye moom sax bi muy dem xamul woon lan moo tax mais bi mu demee sur place euh, daal di nañ koy wax que c'est lié à des propos yoo xamante ni nag tenir na ko am ay révélation yu doy waar yoo xamante ni wax na ko ci benn xew-xew boo xamante ni amoon na au palais de la République donc moom mi nga xamante ni moo di commissaire euh, Keita yëkkati woon kàddu yu ni mel man mi nga xamante ni ab sénégalaise laa dëkk ci réew mi nekk ab journaliste yoruma grade commissaire bien que c'est un ancien commissaire mais maanaam moom responsabilité dafa rëy parce que na quand on dit que c'est un ancien commissaire qui parle boo demee bay wax ci pénc surtout wax yu ni toll dañu naan lan moo tax mu wax lii c'est un ancien commissaire il a des informations yoo xamante ni tey nit ñi dañ koo xamul wala lan moo tax tey mu war a am kilo wala fit gu toll ni toog di wax information gu nit toll jëmale ko ci président de la république jëmale ko eh, ci le premier ministre Ousmane Sonko ñu woo la yow ci kanamu yoon amoo lenn looy wax lu dul ci benn rumeur buy daw ci réseaux sociaux yi nga ko basé wu. moi je trouve ça euh, inqualifiable parce que nag nit soo demee bay wax teg ko ci ay kàddu yu wér te parce que comme je le dis bien que nekkul koo xamante ni référence la dinañu dikkaat ci parcours am parce que nag c'est en monsieur boo xamante ni daanaka buñ lay wax fii la jaar fii la jaar fii la jaar sax yow da nga koy daal di xeeb même boo ko dégloogul rawatina mu nekk koo xamante ni depuis quelque temps nag moom mi nga xamante ni moo di commissaire Keita duma ma du ma ne depuis quelque temps sax depuis bien avant la élection présidentielle ñu ngi ko doon wax muy àddu ci pénc mi nekkoon koo xamante ni da doon lenn rek moo nekkoon yitteem mooy dal Ousmane Sonko lenn moo nekkoon yitteem mooy jëx jël wax ju ñaaw ju tegginewul di ko teg ci ndodu Ousmane Sonko ak opposition bi nga xamante ni moo fi nekkoon jamono jooju en deux mille vingt deux mille vingt deux mille vingt et un di ko teg ci ndodd ñooñu nga xamante ne jamono jii ñooy diriger réew mi yamul woon sax ci Ousmane Sonko kese parce que ni ki démb maa ngi fàttali naan commissaire Keita maanaam kenn ci suñu mentor man ma koy woowee sama nijaay préféré Serigne Saliou Gueye amoon na ay kàddu yu ñaaw yoo xamante ni yëkkati woon na ko teg ko ci ndoddam jamono jooju man Salma Ibrahima Fall dama amoon lu ma métti lool parce que dama ne kii non seulement li muy wax xamu ko mi ngi sosal nit ki te li muy wax tamit maîtriser wu ko yàq deru góor goo xamante ni c'est un père de famille c'est un exemple Serigne yu Gueye jóge woon ci Serigne yu Gueye dem si Pape Alé Niang am ay kàddu yu doy yoo xamante ni tamit tegoon na ko ci ndoddam on se rappelle parce moom nekk na nit koo xamante ni bu daan wax ci pénc lay waxee moom commissaire Keita amoon nag benn jeu favori muy lan yàq deru Ousmane Sonko yàq de Ousmane Sonko ak i ñoñam léegi nag wóolu nañ ko démb comme que moom nee na daa wax ñu woolu ko ci yoon mu ne dafa wax waaye waxam jooju ci benn rumeur boo xamante ni ci réseaux sociaux yi la doon daw foofu la ko basé wu comment un ancien commissaire peut fonctionner ainsi sur la base de rumeur boo xamante ni tey ci réseaux sociaux yi la doon daw nee nga yow ci nga basé wu ba wax sa kàddu yu rëy yu doy waar yooyee jëmale ko ci un président de la république jëmale ko ci un premier ministre comme li may wax rek noonu démb du ma sa bëgg noonu démb bu bëggee tey ay pexeem dañoo sottiwul te tey commissaire Keita kàddu yi nga xamante ni daal na ko yëkkati bi Ousmane ko doon def opposition buñ ko déglu woon tey sénégalais du ñu jox crédit Ousmane Sonko dafa digéreegul tey pilule bi nga xamante ni moom la ko sénégalais yi jox ne ko guuxal ndox te naan Bassirou Diomaye Faye la sénégalais yu wóolu Ousmane Sonko la ñu wóolu ba tax Ousmane Sonko joxoon ñu Bassirou Diomaye Faye sénégalais yi daal di koy fal à cinquante quatre pour cent dès la premier tour lii la supporté gul ba tax mu continuer ci maguyam ak wax yu ñaaw yi nga xamante ni ci la nekkoon